bismillaahi rahmaani rahiim ñu woon ci garabug Tuuba xaajum ñaareel bi ñu jeexaloon waxtaanu téeméer wi ñu tàmbalee kon ci waxtaanu téeméeru ak benn Sëriñ Tuuba xaadalawoo laahu maxtaar lu ne ku bëgg a jamoog man ay sakket ñëwal njareem ku bëgg a dëkk man demal Tuuba nee nañu daana ko wax lu bari ñi daan ñëw njareem di siyaar si siiw na sëriñ Tuuba xaada la wallaahu maxtaar nee na ñeent fukki yësi loo ko saf xàttan na ko am na ñu nit daa wax ni xajul ci xitte siiw na sëriñ Moor Jobbe radiallahu taala xanu nee na bi sëriñ Tuuba nekkee gànnaar daa am ku jébbalu ci moom sëriñ Tuuba xaada la wallaahu ñaanal ko mu dellu bi mu ñëwee bari mbooloo lool ca fan yooyu mu ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaada lawo laahu maxtaara lawo mu ni ko mambar mbaa loolu bëggu leen ko mu ni ko neex na de sëriñ mu ni ko bëri na yu ñuy xemmeem yoo xam ni poñiitum àdduna la bu dajee ba daje ba bëri nga ñu sawara ñëw ñu boole leen siiw na poñiit mooy jumtuwaayu àdduna ngaañ ñi moo di mat walaw alam soxna Faatija radiallahu taala anha ak ñeneen mas nañuy foor yére sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho ba ñu noppee bay tuur ndox ma sëriñ bi gis leen ni leen moytu leen sama jumaa ji te fekk booba jumaa ji taxawagul ci saahir siiw na kon loolu njëkk géej gi lay doon sëriñ bi day wax lu bari ci ay mbindam ni liy bëgg a ñëw lépp da koy xam ak li wéy lépp walaw alam sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtaara ca jolof mas naa xëy di waxtaan ci yowmal xiyaamati ba agsi ci siraat ak ni ñu koy jéggee ba mu rëddee aw rëdd ba ni siraata ngi nii tàmbulee misaal ni ñu koy jéggee fekk sëriñ amsatu jaxate ma nga fa radiyallahu taala xanu ni ko lii mooy siraat sëriñ bi ni ko waaw mu jug meebu mooy wokk ay yéreem ni ma jéggi ko jéggi waaleel mboolem sama ñoñ daal di koy jéggi sëriñ mbay jaxate radiallahu taala anhu ni ñokket ni bismillah ma jéggi ko jéggi waaleel ko mbooleem sama ñooñ daal di jéggi jàll sëriñ tuuba xaada law maxtaara lahoo daal di farra duwa sëriñ mbay jaxate ni ko man sax de dama doon yatt ak gaal goo xam ni bis boobee ñuy wax su ak see ku bëgg sutura ñu dugg ca gaal ga dem sunuy kër te tegg bis koo xam ni nag daa wax ni day jaar ci pénc ma ba am lu wóor ñu bàyyi ko mu dem waaye maag ku bëgg sutura nun teggee noona sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar loxoo ni ko yàlla mën na ko sëriñ Mbay nee na booba lu mu la wax ni yàlla mën na ko sotti na siiw na sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar loxoo mas na am ku ko andil xoolukaayu waxtu muy montor mu ni ko ndax fa nga ko doon wute des na fa mu ni ko waaw mu ne ko demal wutaatal ma ci mu dem wutaat ci andi mu ne ko demal wutaat ci andi mu dem wutaat ci beneen andi muy ñett sëriñ bi di bind ba mu yàgg mu ne ko waxtu wu jot ci bii mu wax ko ko mu ne ko bii nag mu wax ko ko mu ne ko bii mu wax ko ko sëriñ bi ne ko ndax ñoo bokk mu ne ko déedéet mu ne ko ndax ñetti dëgg daa am mu ne ko déedéet sëriñ bi ni ko li may xawal li may xamal waxtu raw na loolu sëriñ bi waxtu wu nekk ci boroomam lay nekk xàmmewul guddi ak bëccëg walaw alam sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo waxoon na ni bu làqoo nañu ko yëgal sëriñ Fallu doomam te bàyyi koog moom ab diir siiw na sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na dee leen añ ginnaaw tisbaar tey reer ginnaaw gee siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa woo cheikh ibra fall radiallahu taala anhu ni ko hadiye ja agsi na waaye du loolu laa lay doye ana lu ma lay doye boole laak aji bind ji ngeen doon kenn ba ñu ko jottalee cheikh ibra mu ni loolu nax na de sëriñ bi ni ko loolu laay def daldi ni dama bëgg ngeen may ma fukki fan yi mujj ci tabaski wi ma tàggu weer wi ñaar fukk yey ñëw ma gàttandoo ko weer way ñëw siiw na ci an mooma la làq walaaw alam sëriñ tuuba xaada la wallaahu maxtaar la nee na nit bu ko àjjana jombul dara jombu ko siiw na li ko waral daa am ku ñu doon jox kenn ci taalibe yi ci ay waa këram am ñu defe ni leneen moo tane mu wax loolu sëriñ bi nag léppam yàlla la lu muy def itam yàlla kese la cay seet ñun nag loolu war nañoo xamal ni bokkuñoo ak moom dara walaw alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak fukk ak benn sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarloo mas naa wax sëriñ Basiir doomam ni ko may laaj la ñu ni dangaa dem Saalum ni ko Ahmadu bëgg nga Saalum te nga ñëw ma jaay la ko mu ni ko dama yorul lu ma ko jënde sëriñ bi ni ko looyoor mu ni ko juróom benn fukk mu ko andi man dama dul maye waaye danaa jaay siiw na mas naa am ñu génnoon ci njabootu sëriñ Tuuba xaadalawoo lawo maxtaara lawo bi ñu ñëwee sëriñ bi ni leen nit ñaa ngi jébbalu ñu ni ko waaw mu ni na leen digal tere leen su ngeen leen digalee ñu def ngeen tere leen ñu bàyyi wàcc ngeen wàcc nañu maa ci des su ngeen leen digalee defuñu ngeen tere leen bàyyiwuñu wàcc ngeen wàcc naa moo ci des xëy na moom yàlla subhanahu wa taala siiw na walla ñoo ci des ñoom nit ñi wala alam tubaab yi dañoo mësa ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadaraw law maxtaar ni ko songu gañu la njëkkoon a songu dañu ko tegoon ci kaw ay njottu rekk songu mooy xeex waaye dañoo dégg ci yow loo xam ni bu amee songu gi ñu lay songaat mooy gën a metti ndax dana diis ci yow ndax dañoo dégg ni dangay jëndi jaam sëriñ bi ni leen seeni ndigal ak seeni tere daa agsiwul fii te loolu ngeen wax dëgg la damay jëndi jaam waaye jënduma leen ngir ñu doon samay jaam dama leen di jënd ngir di leen goreel ñu ni ko wax nga dëgg bu ñëpp defoon ni yow kon benn jaam du fi des sëriñ bi ni leen man lu may doyee jaam koo xam ni gor yépp bëgg a nekk jaamam lu muy doyee ay jaam siiw na am na bés sëriñ tuuba xaadalahoo lawo maxtaaralahoo di julli ku am taxawaay lool di dugg ci biir sàppey bi sëriñ bi sëlmalee mu jug ko ñu nar koo sëriñ bi fettasu ñu bàyyi ko mu jug ànd ak moom dugg ca biir ba mu génne ni sama gan xanaa jaaxal na leen fa mu jóge di ñëw bi mu agsee màkka la xaajal te duggul warul siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo bi muy boole ñenn ci ay waa këram ak sëriñ Amsatu Jaxate radiyallahu taala anhu da wax ni li tax ma boole la ñi ñii du doon goo doon seen nijaay rekk waaye doyloo guma la doyloo la siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas na wax ñooñu mu boole woon ak sëriñ Amsatu radiyallahu taala anhu bu seen njàngum alxuraan yeggee danaa leen gunge ba Tuuba siiw na sëriñ Aliyu Juuf radiallahu taala anhu bi mu jubloo ci sëriñ Tuuba xaada laho law maxtaar laho da laaj noo tudd mu ni ko aale sëriñ bi ni ko Aliyu siiw na mas nañoo laaj sëriñ Tuuba xaada law maxtaar laho alali miraas ak alali hadiya sëriñ bi wiccax loxoom ni alali miraas cam li tax mooy sànni alali hadiya moom boo koy joxe la nga yor di joxe day la nga ci sa jiba jiba mooy poos boo ko joxee li nga bàyyi ci sa jiba ci loo ko mën a sànq da nga ca am yoolub hadiya siiw na sëriñ tuuba xaadalawloo maxtaalowoo wax maam cheno radiallahu taala anu luma am ci adduna ak alaxira da nga ci am bu néeg lakkee ci sama kër waañ dana jàpp sa kër siiw na daana ko wax loo amul ci lu baax dama ko amul siiw na kon ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñaar fukk ak benn Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na jàngal nit ba mu fer hijj ak gunge gan muy ànd moom buy dem bu ma ko jot gi mayoon maa koy defar sama bopp duma ko sant kenn siiw na sëriñ tuubaa xaadalowoo laaw maxtaarlowoo nee na ab taalibe wërtatale dara siiw na li ko waral sëriñ bi xaadalowoo laaw maxtaarlowoo bi mu nekkee gànnaar am na bis li ñuy jëfandikoo jeex mu ne ana ku mën a jàngi am ku sant siise ni ko man sëriñ bi jox ko ni ko demal wuti mu wuti ñëw mu yéeme lool ca sëriñ bi wax lool yi wala alam jàggi xañ na moo yelwaani sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na tuuba ku fi def lu juunu lu juunu mooy lu ñaaw bu ëllëgee mooy soppiku jëmm layoo koog moom siiw na wala wér na lool xam naa ni loolu du soreg li muy wax wa xujjatan ala muxaalifin gada ci xasida addu'a wa shukru yal nañu yàlla saxal ci jàng alxuraan ak xasida ak xasida yi borom tuuba xaada lahu maxtaara lahu tey moytu jëw ak fen wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo bi muy doore ñëw njaareem mi ngi nekkoon ca taax ya taax mi ñuy wax fukki bunt fa wetu commissaire di fa jóge di ñëw fii fi kaw tund wi daanu jullee fii jumaa ji nekk léegi daanu jullee fa guy ga ca kër màlle kanji daana fa jullee guy ak garab la daana jullee ay yoor yoor fa daqaaru armeel ya wér na lool am na bis loolu ba tey benn beneen nettali la muy téem mu nettali téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne am na bis ab séeréer fekk ko foofii mu doon jullee mu laaj ko moomeelug bërëb bi mu ni ko maako moom Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar ni ko fii dama fee bëgg bërëb fekk mu ngi dend ak caakus xaalis soo xam ni téeméeri dërëm mi ngurdu moo ca nekk wala ñaat téeméer mu jox ko séeréer ba mu ni ko fii doo fi dëkk ndax doo fi bay doo fi sàmm doo fi gor sëriñ bi ni ko man ab sëriñ laa boo xam ni bayuma goruma sàmmuma itam damay jullee jàng rekk mu doora a fab xaalis ba ni ko kon bërëb baa ngoogu jullil jàngal foofe ba mu ko defaree mbay ma mu fa njëkk a bay di ko leeral ba mu sottee da ko boole may ko séeréer ba wér na lool am na bis séeréer boobu dellusi fa mu ni ko dama bëgg nga ñëw ma jox la suuf sii nga wër armeer yi jigéen fii yépp bu ne nga somp def ca ndax bu guddee duma fi mën a jaamu yàlla duma fi mën a liggéey ndax jooy ñu nekk ci armeer yi ba mu ko jëlee def noonee dellu këram ba am bi sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaraloo woolu ko ni ko waaw la ma la waxoon xam naa ni def nga ko ndax dara jibatu fi muy kaweetu fi mbooleem ñi fi doon jooy léegi ñi ngi nelaw wér na am na bis sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo dikk wéeru ci xay gi ni fil buqaatil mubaarakati min ashajarati an yaa ni garab gi maay am muusaam daldi ni garab gi haasaa muusa ki ni soo gisee ma jigéenal ko xarab daa wax ni lu amul rek rekk na koo jigéenal moo tax ma ni haasaa muusa ki taxawaayu garab gi ci bërëb bii mooy taxawaayu fil buqaati al mubaarakati min as-sagrati an yaa muusa moo tolloog loolu wér na am na bis ñu di liggéey am ko fa pont daaj ko fa wékk fa mbubbam ma muy liggéeye bi sëriñ tuubaa xaadalawo law maxtaar loxoo dikkee seen ko laaj di lii di wékke lu mu doon ñu ne ko diw mii moo fi wékk mbubbam sëriñ bi woolu ko mu ñëw mu ni ko waaw ndax nee nga ko def nangu nga ñee nga àndal ñu def la ko mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko tawat joo ci tawat buñ la ko defoon fi mu ne garab gi mi ngi koy tawat danga nga koo déggul rek waaye mi ngi tawat tawat ju ko raw foofe ñu daldi njëkkante mbubb ma xotti ko sànni ko mu daldi di ku ñuy wax kale mu ndaw ni ko na nga wut sàkketu weñ yooyu ngeen di am laxas ko ci ba nga xam ni kenn dooti ci jot ba di ci daaj mbaa mu di ko xas xay ga ko féete buntu kër gu màgga sajaratul yaqin la ko tudde woon ak dóob la wér na lool dóob xeetu garab la am na itam garab gu tudd dóobaali walaaw alam am na bis ñu ngi ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent am na bis tubaab yi andil ko ay garab ngir ñu ko ci kër gi sëriñ bi laaj luy xaymay garab yooyu ñu wax ko ko mu fay ko wax ni bëggul seen dara wér na am na bis mu woo sëriñ Isaa Jeen radiallahu taala anhu ni ko dama bëgg nga defal ma néeg boo xam ni suñ la mayoon nga mën a bind sa bopp na bëgg a toll cib taarakuk rëyakuk baax nga man koo def ma bëgg nga defal ma néeg bu mel noo nii manit ma defal la noo nii ba mu àggee ñetti téeméeri toogu ak fukk ak ñett lañu fa def sëriñ baara jan ak sëriñ saalihu loo ñoo yóbbu woon ceeb sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu ni leen su ngeen demee nee leen ko def na la ma waxoon maa ci des am ci ku ko yow de loo des desul wér na lool ñoo ci beneen nettali muy nettali téeméer bi ak fanweer ak benn bi ñuy liggéey jumaahi njaareem ko maanang dafa ñëw taxaw ci buntu jumaa ji kek ma fa man salihu lo ma ngi mor job ñuy toj doji di yéen ñi tabax ci bir bu kenn toje ni naha ila laytil haram likay yasira zan hidam mustadrajun min al anam lil jahl bil mu'azami ki yobuni والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعل كيدهم في اليهم ني نيك سي sunum جانغ rek مو جاب مور جوب yóbbu sëriñ Isaa radiyallaahu taala anu dem ca mu ni ko duma la ko jox fawwu sëriñ bi ñëw ndax da leen a yarul moom yar ñépp bu leen yaroon bu ma dikkee da jóg yéen ñépp nuyu ma waaye faaliwu leen ma di wax li ngeen di wax rekk sëriñ Isaa ñëw wax ko sëriñ Moor sa mu wax ko sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo sëriñ bi ni ko bu ñu sëlmalee tàkkusaan na ma kayoor demu ga fekk fii fukki buntu mbàkke jaxate mu daal may woo man saalihuloo ñu bari topp ma ñu dem bay bëgg a àgg ko maanang seen ko ni mat seen sëriñ baa ngi ñëw te ku mu fi fekk nga dee man nag dem na waxal ka yore ngóor sa mu wacc ko mu aw ca ginnaaw sëriñ Tuubaa xaadaloo loo maxtaloo ak sini ana doon woote ñetti yoon la ko wax kenn wuyul mat seen raam ndànk ñëw ni ko ka doon woote kat dalaa seen daw sëriñ bi ni accam di woo koo xam ni boo ko séenee daw lu mu doon woote nag daldi ni bismillah wala di dem ñu topp ko mu daldi ni mat seen ana foofi dëkk ci réew yi mu ni ko waalo sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo ni ko ndax ndox moomee fa seen wet yéen ko xam ba xam fa ngeen yam am ndox maa leen xam ba nu leen neex def ndox ma mu ne ko mooy jokk xëy na muy turu ku ko laal san ko sëriñ bi ni ko bu dikkee nee ko maay jokk bi sëriñ bi dikkee woolu mag ña fa nekkoon ca jumaaje ni leen dama bëgg ngeen wax ma ñii lu ngeen ci bëgg sëriñ isaa jenn radiallahu taala anu ni ko daa di leen fii jële mbaa nga xàllee leen xëy na mooy labal leen wala faat leen mooy mbaa nga xàlle leen ñëpp génn na Musa alayhi salaam defoon Firawna sëriñ bi wax ni na keneen wax maam Cheikh Anta Laahu taala anu ni Isa xamul li muy wax bu ñu fi jugee ay am li ñu bëgg lépp ñoo ñu koy wutal jotewuñu fa mu nekk sëriñ Tuubaa xaadalaw la wala la woon la woon ni noonu la daal di fëgg sàkketu weñ wa fa nekkoon ni lii nu sàkkete kër gi fu mu jóge ñu ni ko ci ñoom mu yóotu mbubbum Sëriñ Isaa jenn ni ko lii ngay sol ba mën a jaamu yàlla fu muy jóge mu ni ko ci ñoom mu ni waaw dugub ju weex joo ji ngeen di cerewoo xëy na muy ceeb fu muy jóge mu ko ci ñoom mu ni ko suukar si nag mu ni ko ci ñoom sëriñ bi ni ko loolii lu baax la te mënu leen koo ñàkk mu ñu leen ko li leen naqari ci ñoom daal di ni waaw lu mu leen fekk ngeen di ko def man saalihuloo ma ni ko daa fekkoon ñuy jàng xasida maag móor jóob su móor jóob ne na xaayilal baytil xaraam li kay yasira zan hidaam mustadrajun min al anaam lil jahali bil mahasami fu mu ma mën a fekk ma tontu ko ni ko wallahu jalla faala bi jayshihi ma faala bi jaahi wa jaala kaydahum fil yahmi sëriñ bi ni bismillah foofu mu ne kat ñoo ñu yoroon ña yooyee wax ni dañuy toj kaaba ga seen bakkaaru bokkaale ba la amee tey jii daa amewul seen doole rek waaye ñooñee kax bëgg a naqari woon ba ñu ni dañu koy toj loolee moo ko taxoon a jug bakkaaru bokkaale ba moo ko wàll moo ko wàll daa amul doole jañu am rek kon nag defal naa leen yéenee ñooñ ñii ku doon tabax yéenitam itam yoolum ña doon tabax kaaba ga moom mi itam wuutal naa ko bàkkaarum ñooñee wasalaam mas naa am cheikh bu indi hadiyaam ci sëriñ tuuba xaadalawo law maxtaalowoo mu ni ko war góor góorgóorlu ndax alal joofi masa indi dana ni ma maay ñaqu diw te mësuma la fee tudd siiw na sëriñ tuuba xaadalawo law maxtaalowoo bu masaana dugg xalwatu day wax ni gan gu fi ñëw mën ngeen koo yewi mooy bàyyi bu dee ku yor alxuraan na ngeen ma ko téyeel teralal ma ko ba ma génn ndax saa boroom dama soxla siiw na ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak fanweer ak ñeent sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo daana tëjuwaaleeg sëriñ Abdullahi doomam ci ay xalwatu siiw na am na ku sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo masa laaj fu alxuraan ci tollu mu ni waaye sëriñ bi ni ko waaye day yàqi wax ni ko demal ca Moodu Awa Njaay mu jàngal la siiw na sëriñ Tuubaa xaadale wala maxtaar loo am na ñu waxoon ku sama ñooñ daje bay tàggoo nañu wax ñetti bayit yi asbil sutuuri aslih umuuri kassir xuyuuri bilaa kidaay aslahta xaali bila rsi xaali بهدي عيالي بلا بكاء هب لي استقامة خن الملامة هب لي الكرامة بزل واي tàggutoo ko lu ci waay ñoddi dana ñëw lu ci waay jañ dana dem ba mu waxee lii daldi wax benn waay bu neex baat bu fa nekkoon ni ko nettali ko mu tàmbali bayit wu mu wax sëriñ bi firi ko siiw na sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo mas woolu sëriñ maam moor jaara daldi law taalaanu ba mu ñëwee sëriñ bi daa wàcci der ba mu toogoon jox ko nanguwu caa toog ñoom ñaar maase toog fi suuf sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo ni ko sa turandoo wa kat muhammadu rasulillahi salallahu taala alayhi wa alihi wa moo fi ñëwoon bëggoon laa gis lool am na lu sëriñ maam moor jaara waxaat sëriñ mi ni ko xanaa xamoo ni nee yaa ko gënal ci ay turandoom siiw na Sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaarloo nee na képp aju ci yéen na ngeen koy wax li may digle ak li may tere ma booli leen yóbbu koo xam ne defaloo ko yaag say nit bu ngeen dee jàppante téere baat sama yoon newu ca wér lool jàppante téere mooy xuloo daana ko wax lu bari walaaw alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo nee na ku ci jokk ci yéen na ngeen ko digal ñent julli juróom fu mu ko fekk na ko def moo xam xam na farataak sunnaak lu ñu sopp ak lu dagan wala xamu ko bu ko xamul nay sëgg ka siggi topp ndigal yi te set ak woor weeru koor ak bàyyi fen ak jëw ku jébbulu li ngeen ko wax yi ci des maa ko amee wér na lool sëriñ tuuba xaadaloo maxtaar loo am na julli xiit goo xam ni rut ba wul daa wax ba musalmalee ku ci amoonub yar na sant ku ko ci amul na ko wuti wasalaam wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada lawoo lawo maxtaar lawoo daana woote ñaari waxtu ci guddi ci bunt bu ndaw ba di waxtaan nga xam ni fa ñu toog ndox mi dafay taa feli di leen sam waaye kenn du ñemee fatamtiku fatamtiku mooy wokkatu foofee la ñuy nekk ba ñu noddu fajar mu ni julli leen foofu bu ñu sëlmalee mu del si nga xam ni albaaqiyaatu saalihaat fa ñoom la koy defe daa di ni fal narja ila ma nahnu bi sadadihi loolu mooy nañu dellu ci lañ nekkoon li yuballigu shaahidu minkumul ghaiba loolu mooy ñi fekke nañu jottali ñi fekkewul wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo bu daan woote xasiida Abdullahi Addaymaan mooy jàng bu fa nekkul Abdul Wadoot bu fa nekkul meneen Abdullahi bu fa nekkul Mad Lamin Jóob wér na lool xëy na Muhammadu Lamin Jóob Dagana la bëgg a wax radiallahu taala anhu ndax daana jàng wallahu alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeen fukk ak ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax serigne mohammed lamine diop radiyallahu ta'ala anhu demal fee fa dóob ga ak garab la te jublu xibla daal di ni jige si leen laa ilaha illallahu muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama yàlla mooy rabbul bashari yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mooy sayidul bashari alquran wàcc ci yonante bi alayhi salatu wasalaam alquran juróom benn moo ko cheikh al amru defal an xayu baal bàyyil al waadu defal ma fay la waxidu boo deful ma xëy na daa dog li ci topp ngir gàttal wala bañ a tudd lu naqari ci làmmiñ al ixbaar wax na yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa lépp lu mu xamul insaar mooy ubbi xol bi def ci leer asalawaatu xamsu dikk koor ñëw aj ci ku ko man natt asaka ci lu mat nisaab mooy tolluwaayu xaalis bi wala leneen bàyyi fen bàyyi jëw yii moo di lislaam yii yàlla digal yonente bi salallahu taala alayhi wa sahbi man moom mutabiun mooy dama koy topp waaye laa mubtadiun fentewu ma dara wér na lool am na bis sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo am ñu mu woolu ca buntu sëriñ bàlla coro diggante timis ak geeni waaw xanaa yéen ñii ci wetu kër ndey jekki ngeen ci xam ma masamba kani ni ko moom kay doy na waar mu ni ko ne xam masamba xanaa mbedd mi muy yoon wi ay séréer ngi fi daagu mu ni ko bi nisbati boo ko askanee ci ni ma séréer si ak yéen ñi ma jige ci wetu mbokk suñu wéetee di jàng fulxul masoon di leen ko xamal ak di leen xamal xikmatu niñ ma réeree ni ngeen ma réeree bi ni ko jawaabun su'aalun muxaddamun moo nekk foofu nee la buñ la xamul ku la xam munu ko wax naa ko sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo ni ko ñettama xam rabbul xissati rasulillahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi ak taalube buy topp ndigal ba dem barsàq wér na lool nettali bi baat yi xaw naa am nu mu demee waaye ku xool xam ni bokkute kenn dara la bëgg a wax te mooy nasaani minal waral baaxil xadim allamahum bi anniyal abdul xadim walaw alam ndax nettali léeg-léeg ni dikk rek noonu la koy sottee moo tax léeg-léeg ci tegaleen wi doon lu naqaree xam wala am nu mu nu mu nu mu tëdde Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo man nag ku def liw yàlla wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ma yeesal dem nga ku ko deful topp sama ndigal ba ma gërëm la te defoo li yàlla santaane ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa doo dem ajjana doo dem sawara suuf lañu lay soppi ku leen boole nag ni coow ajjana coow mooy jubal bu gaaw nettali bi daa taqaloog bi ko jiitu ni ma ko jote moo tax ma bindee ko nii waaye bii moo mottali ba weesu walaw alam ñoo ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom benn Sëriñ Tuubaa xaadaloo loo maxtaar loo nee na bu bis baa danga gis ku ko jige lool ci mbokk te jubul dañuy fab koo xam ni ma nga bërëb bu sori te jub soppi ko nuróole koog moom fob kii ko jige te jubul sànni ca kàmbuga wér na lool yal nañ ci yàlla musal Sëriñ Tuuba xaadalawoo law moxtaarlawoo mas naa wax Balla Coro baat boobu bu ko waxati lu dul maa la ko sant te mooy baati tubaab wér na lool Sëriñ Tuuba xaadalawoo law moxtaarlawoo nee na am na ñaari lakk yoo xam ni xam na ko benn bi da koo seexlu benn bi da ko bañ nee na na naar lool waaye bu ko waxee ñu lëjal ko dégg na tubaab lool waaye da ko seexlu wér na lool sëriñ Tuuba xaadalawoo laawu maxtaaloo nee juróom ñaari at yooyu ci géej gi lay wax nekkuma fa góor nekkuma fa jigéen nekkuma fa gone nekkuma fa mag maag sama satala wér na lool sëriñ Tuuba xaadalawoo laawu maxtaaloo nee na am na bis tubaab bi laaj ko ndax yaay Mahdiyu mu ne ko mante xam waaye jaam bu boroomam gërëm laa de wér na lool sëriñ tuuba xaada lahoo nee na bi ma nekkee ci géej gi dama bëggoon a julli fii nekk ndox fii di sobe ma ni saa may ma joor jooy mooy bërëbub suuf gu nooy gu ma mën a sujjóot ma sujjóot sujjóot boo xam ni kenn sujjóotu ko mu ni ma may naa la ko te waxuma fan la bi liggéey bi àggee ma dikk sa noosi mu di joor ma laaj ko mu ni ma du foofu ma ñëw gànnaar mu di joor ma laaj ko mu ni ma du foofu ma ñëw jolof mu di joor ma laaj ko mu ni ma du foofu keroog ba ñu ma indee fii njaareem mu ni ma fa nga doon ñaan mooy fii moo tax duma ko tudde Tuuba duma ko tudde Daaru Salaam al buqxatul mubaarakut laa koy tudde lii mu ci teg te mooy li nekk njaareem nekkul fenn xëy na muy waxi boppam moom mi doon nettali walla u alam Sëriñ Tuuba xaadalawoo laaw maxtarlawoo daana wax ñiy bàyyi ko Tuuba fii mooy kër gi foofaay tool yi wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laa maxtaloo nee na Tuubaa bixtiyaarin min nafsi maa ko tànnal sama bopp njaareem bixtiyaarin minallaahi tabaaraka wa taala yàlla moomu ko tànnal wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo maxtaar lawoo nee na mbedd mee gudd waaye kër yi genn la muy Tuubaa ak ñu sàkkoonte ñu sos fii ak ña sos fee Sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo daane digle gone yi di watu gaawu mag ñi di watu ajjuma siiw na Sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo nee na sama boroom alal ji mu sàkk jëpp da ko misaale ab dërëm ab dërëm fukki tànk la mu fa benn tànk bi sorxal ko àdduna mooy li tàmbalee fa àdduna sosoo ba fa àddunay jeex alal ji nga xam ni ku dëkk ci kaw suuf rekk a ko mën a jariñoo fab juróom-ñeenti tànk ya bàyyi ko àjjana di ko xarool julli ñi daa di jël benn tànk ba nga xam ni moom la surxal àdduna tànk fukki suula xëy na muy ab limukaay mu fab juróom-ñeent yépp def ko muy lu xaraam lu ñu sib benn subi mooy lu leew lu teey kon war na noo sant yàlla nun julli yi ndax li nu war a sante yàlla mooy benn subi yi ñu am ci seen tànk bi te ñoom amuñu ko ca sunu juróom ñeenti tànk yee wér na lool am na kilifa naar goo xam ni ba mu jébbuloo ci sëriñ Tuubaa xaadala walla maxtaarala woo sëriñ bi da ko da ni ma wax la lu tuuti ci ngëneeli sa sëriñ bi nga aju ba mu nangu la ko bis boo xamee ni ab jaam jébbal nañu ko boroomam ca bàmmeel mu doon ab taalubeem bu doon ñu bari lool ñoom ñépp dajeendoo ci bàmmeel kenn ku nekk bëri bëri daal ku ci nekk bu duggee ci bàmmeel dana ma fa fekk loolu yi ma wax la ko ci sa sëriñ bi nga aju am na bis sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaroo ni nattu baa ngi ñëw ku def gis ku bëgg ñu topp la dangay daw aw ca yoon wa te ni ku dem ma dem ku demul ma dem boo ko defee ku fasoo dem day daw jot la rekk waaye ma topp matula tayel aw yoon ku ci ne aw yoon ku ci ni bala maa dem ñu dem ku fa soo dem bu demee daw wàcc la ku bëgg a am dangay def loo am joxe ko ni yàlla boo yoree la nga yor te sab xol ni koo joxe yàlla du bàyyi kenn mu di la jox dara ku bëgg a defub sang dangay nangoo doon jaamum nit ñi wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo nee na bala maa génn sax dañu may wax demal fa buntub diw du caagéeni bunt yi fu ma neex dem déedéet wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtalawoo nee na loolu nga xam ni wàllu yi daanañ ko wax mel ni cheikh ahmadu tidiane radiallahu taala anu ak seyxu abdul xaadir jaylaani radiallahu taala anu mel ni maaraw ñëpp daa waxte mooy xaddami ala riqaabi kulli waliin sama te seen wax yooyu daje gi muy daje muy deñ te wax luy deñ jëru ko moo tax ma wax ni xaddamu ahmadu ala bi man mada wa ma yaati wa sa saman ba nga xam ni bis penc ba day teew ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi yonente bi salallahu taala mbooleem càng ga day dellu ci moom loo amoon ci càng tuuti tuuti lépp day dellu ci moom kenn yoratul dara ñépp naan nafsi nafsi sama bopp sama bopp loolu ma wax xaddamu ahmada ala riqaabi man madda wa may yaati wa man fi sa saman man samay wax keroog lay sax keroog kenn ku ne la nga wax danga koy fàtte mel ni waxoo ko woon ngir saafi ne wala seeni wax yooyu mi ngi mel ni taw boo xam ni daa fanaane taw ci guddi mu fees ci géej yaag déeg yaag yépp waaye dikk fii ni suñ dëkk ba la mu fanaanee taw musu koo taw fenn dëgg la waaye ca àll ba it ma nga fa doon taw wér na lool su ko defee ki nettali lii fekk na fi sëriñ bi nekk ak moom moo tax ma wax ni wér na lool waaye du tee fi mu ne dana am benn benn baat yoo xam ni moo koy leerale wax ji loolu am na ñu koy mën a xam ci waxin yi loolu itam dara nekku ci ndax ku nekk ci làmmiñam lay mën a nettale akum xelam fa jasaahumullahu xànnaa xayran Sëriñ Modou Lamine Gaye moo yoroon buntu kër gu mag gi radiallahu taala anhu nee na Sëriñ Tuubaa xaada loxoolu maxtaar loxo guddi bu daan dox ci kees yi day yor sondeel wala làmp fatafoor nee na am na bis sëriñ bi yor ab sondeel di dox ba agsi fi man ni ma demal wool ma xaasim ma ne ko noo toogoon léegi mu ni ma wama tawfiqee ila billahi moo ma taxoon a jukkat xaasim fu ma la gis war naa laa jox mbubb mi ngi yor sondeel muy rogalaat ci xaftaan bi mu sol waaye da ko ni dindet ni ko solal wér na lool ñu ne ci net téeméer ak juróom benn fukk ak ñett sëriñ Mut Lamin radiyallahu xanu neena nee am na bis sedd bi metti lool ma fab ay saaku boole ko def ko mbalaan bunt bi ma nekk sëriñ Tuubaa xaadaloo laalu maxtaaraloo ñëw ba romb ma ma jug mu ni waaw lii lu mu doon daal di jàll del si jox ma am mbubb ni ma am solal kii wér na lool sëriñ Mudlaay min radiyallahu taala anhu nee na am na bis sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo yónni ma ay yoon yoon may dox ba mënatuma dox ngir xiif bu metti te amuma lenn lu ma lekk ma dox ndànk ñëw ni yoxoo ci néeg bi tëdd jékki ba yàgg ma dégg ku yëngu ma ni kooku kan la mu ni ma mën ana mët laamin sëriñ bi moo ma yónni ci yow ma ubbi mu jox ma ab këll bu def cere ni ma sëriñ bee la ko jox waaye li may xiif xiif taxul ma lekk ko ndax mën naa ñëw ni la ana la ma la joxoon ma wàcc ko fa ba fajar mu ñëw ma ni ko këll bii de tàmbalee leeral mu ni ma fobal waaw yaa ko moom nee na it aw des woo xam ni da koo teg rek joxu ko nattu na ci nit ba tàyyi ndax soo toogee ba yaakaar ni fàtt na ko ba lekk ko mu laaj la ko nee na sëriñ tuubaa xaada la walaaw maxtaar la ko ëpp moom mënul ci moom dara li ko gënal ci nit mooy la mu ca defal boppam wér na lool sëriñ mët la min radde law taala xanhu nee na man mii saa nopp bii jàpp na ci ba tàyyi ni ma bàyyil waay bu manee guy ga nga ni ma daqaar ga wuyu ma waay diglu lii ma lay wax wér na lool nee na jamonoy koor da daan duy ndox di ko yóbbu ca jàkka ja gone yi di soowoo ñii naan dana naan ak duma naan am bi sëriñ aafiya ni ko yóbbu ko ca mbedd ma benn bi sëriñ tuubaa xaadalawoo la wax maxtaaralawoo woo ma ni ma ana liggéey ba nga daan liggéey danga koo liggéeyatul ma ni ko sëriñ aafiyatu moo ni ma yóbbu ko ca mbedd ma mu ni bismillah jullit bu woor ba jant so dana naan ak duma naan jooju coow naqari na seytaane lool bu nokkee fee duñu coowoo xam naa day gën a féex wér na lool am na bis sëriñ ma sàmbara taala anhu di séddale café ak warga mel ni gone yi mu naan def leen ndànk sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo ni ko yéen ñëpp ay bant ngeen bant bu dalee ci moroomam te bu dalee ci moroomum bantam mu yëngu أديا